alhamdulillahi alladi ahyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame tey gaaw ci atum gàddaay bi moo tombek atum junni ñeent téeméer fukk ak juróom benneelu at ñu di leen fàttali ne rek tey mooy fukki fan ak ñeent ci weeru tamxarit xanaa du des na suñu diggantek weeri koor ba ñuy séentu muy ñëw deux cent vingt cinq jours deux cent vingt jours moo des suñu diggante ak weeri buy ñëw yal nañu fi fekk buy dem yal nañu fi bay waaye lépp lañ fa jaamu yal na yal na ko buur yàlla nangu amin ya rabbal alamin mbokk yi tey di gaaw moo tombe gàddaay yonent bi mille quatre cent quarante six ans tey mooy le 14 ci weeru tamxarit ñu di leen fàttali ne rek des na suñu diggante ak weeru koor deux cent vingt cinq jours ñu di leen dégtal waxtaanu fajar ba ngeen tàmm di ànd ak ñun ci waxtu wi ñu di ko wéttalante ki yéen ñan yàlla suñu boroom tabaraka wa taala yal nañu ko yàlla jàppandalal yan nañu yàlla may dégg ak topp ku lan koy sànnil ci jaww ji bi ngeen koy war a mën a dégg mooy suñu mbokk jaawo jàllo moo féetee côté technique bi yal nañu ko yàlla fayal amin ya rabbal alamin mbokk yi ñu fas ànd yen ci aaya ju am solo yo nga xamante ni yàlla tabaraka wa mu ñu ko baaxee ci alquran waaye lu jiitu loolu mu di leen fàttali ne xéewal yañu yàlla buur bi tabaraka wa taala xéewalal mu doon xéewal yu mag yoo xamante ne kenn mënu koo naataable kenn mënu ko xayma waaye dañ ci jukki astuut ñu daal di tënk su ko defee yow mi ñuy bàyyi xel ci waxtu bi ci réew Rewmi FM 97.5 ñu war a ànd yow roote njëriñ ba ñu buur yàlla tabaraka wa taala wërsëgal ci suñu diine bi ñu di ko dund mu doon diine woo xamante ne léppam njëriñ la ndax buur yàlla tabaraka wa taala moo ñu wax ci suratul aala fa dakkir in nafaati dikra sa yadakkaru man yaxsha del fàttali yow yonent bi del fàttali yow imaam bi yow borom xam-xam bi yow ustaas bi ndax fàttali dafa am njëriñ njëriñ ba fa nekk mooy sa yadakkaru man yaxsha dina fàttaleku képp ku làmboog ragal yàlla képp ku bàyyi xel yàlla ci boppam ci jëmmam dina mun a fàttaleku waaye nag nitaa ngi nii koo xamante ne repp na toskare ñeel na ko kooku mooy dumóoyu fàtteli moo tax borom bi ne wayeta jannabuhal asqa kin repp ki nar texe di ki nar a sànku mooy kii bañ a déglu fàttali bay jógee ko ci alquran ak njàngale yenent bi kooku moy ki repp kooku moy ku sànku kooku mooy ki toskare moo tax borom bi ne wayete jannabuha dina ka sore al asqa ki nar torox nar a sànku nar texe di keroog bis kooku màndargam buur bi yàlla muñ ñu koy wax nee nañu alladi mooy ki nga xamante ne yasla naaral kubra mooy tabbi safara su mag soo xamante ne nekkinam ci biir safara si mooy nekkin bu doy waar yàlla nee nañu kooku bu tàbbee ci safara su mag soosu keroog bés penc nam fay nekkee mooy summa laa yamuutu fiiha wala yaxya déet mu doon ci biir safara suusu kuy dund déet mu doon ci biir safara suusu kiy dee mandargaam ci biir safara suusu yàlla dong moo ko xam mandarga bu garaaw mandarga bu kenn xamul ndax ñun suñu xam-xamu nit suñu xam-xamu doomu aadama fu mu toll mooy ku dund dafa dee ku deewul mu ngi dund waaye yàlla nee na képp kuy dummuyu waaraate bay tukkeekoo ci alquran waaraate buy tukkee ko ci njàngale yonent bi képp ku ko dummóoyu kooku mooy ki nga xamante ne day tàbbi si safara su mag soo xamante ne nekki naam ci biir safara soosu mooy du fa doon kuy dundu waaye du fa doon kuy dee moo tax yàlla ne summa laa yamutu fiiha du fa doon kuy dund wala yaxya du fa doon kuy dee du doon kuy dee waaye du fa doon kuy dund nekki naam foofu daal yàlla rek moo ko xam buur yàlla nee nañu kooku mooy ki nara sànku kooku mooy ki nara texe di la ko yóbbee mooy dafa opte baña a déglu waaraate buy jógee ko ci alquran ak njàngale yonent bi moo tax yàlla ne ko wa yatajannabuha al asqa dina ko sore ko nara texe di ku nara sànku ku nara toskare kooku mooy sore waraate bañ koy waar ci yàlla alladi mooy jëmma joo xamante ne yasla naaral kubra dina tàbbi ci biir safara su mag keroog bés nekkinam ci biir safara si mooy summa laa yamuutu fiha wala yaxya déet mu doon ku fay dee wala déet mu doon ku fay dund yàlla ne qad aflaha dëgg-dëgg mucc na texe na man tazakka ku ñoŋal wa zakara suma fa salla mu daal tudd boromam ci cellaangeem mu daldi di bañ a bokkaaleeg boromam dara mu wiital boromam ci paspasam wiital boromam ci xelaatam ci comportement ci kàddoom mu daldi di jokk boromam ci waxtu yu julli juróom ya fekk ci dundam ci bisi kooku mooy koo xamante ne kooku mooy ki ñoŋal bakkenam ba tax na noonu la sallallahu alayhi wa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam murru bilmaaruf wa nahaw an il munkar qabla an tad'uu falaa yastajibu lakum rawahu ibnu maaja wa saxahahu l albani mbokk yi yal na jaami yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot te yàlla yónni ci xel wi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne muru nangeen digle bil maaruuf lépp luy ñoŋal penc bi muru nangeen digle bil maaruuf lépp luy jekkal seen diggante bi muru na ngeen digle bil maaruuf lépp luy yewinal seen nekkin ci pénc bi bu dee wax la na di wax luy ñoŋal seen diggante bu dee jëf la ngal nangeen jëf luy rafetal seen diggante bu dee xelaat la na ngeen xelaat la wala rafetal seen diggante bi muru na ngeen digle bil maaruf lépp lu baax wan xaw na ngeen tere anil munkar lépp luy ñagasal seen diggante bi bu dee wax la ngal la waay bu kenn wax luy ñagasal diggante yi bu dee jëf la bu kenn jëf luy ñagasal diggante yi bu dee xelaat la bu kenn xelaat luy ñagasal diggante yi wan xaw na ngeen tere anil munkar lépp luy jaxase penc bi bu fi kenn wax luy jaxase penc bi bu fi kenn jëf luy tas penc bu fi kenn wax walla ngay jëf la tax penc bi di tasaaroo jaru ko yonent bi ne nekk leen ci ñaar ñii nangeen nangoo doon ñuy digle lépp luy defar askan wi na nangoo doon ñay tere lépp luy ñagasal luy tas pénc bi yonent bi nee na bu ngeen nekkee wut di jëf ñaar ñii ah ragal naa ngeen tàllal seen loxo di ñaan seen boroom mu bañ leen faale de te noonu sax lay demee ndax noonu la wax nee na murru na ngeen digle bil maaruf lépp luy defar askan wi murru na ngeen nekkee di digle bil maaruf lépp luy baaxal toogaayu askan wi wan xaw na ngeen doon ñay tere anil munkar lépp luy tas penc bi na ngeen nangoo doon ñuy tere dee leen tere nit ñi ñuy wax luy tas penc bi dee leen tere nit ñi ñu bañ a def luy tas askan wi na ngeen doon ñuy tere nit ñi ñuy jaxase askan wi ba su ko defee dootuñu am ngelaw bu fiix na ngeen doon ñuy tere ñay def ñaawti fi qabla an tad'u balaa ngeen di ñaan fala yustajaaba lakum te kenn du leen wuyu ndax bu ngeen nekkul di tere lu bon ñay def lu bon seen lu bon yooyu bu demee ba lembee askan ah li fi des mooy dañu naan nañ leen tàllal loxo ñaan yàlla yàlla yonent bi nee na su boobaa da ngeen ñaan ba toqi kenn du leen wuyu kenn du leen faale yàlla du leen wuyu de waaw ndax amaana bu ngeen nekkee woon di digle lu baax di tere lu bon amaana yàlla dina dugal ci xolu ñey def lu ñaaw ñu taxaw soppi doxalin waaye bu ngeen nekkee ne patt di noppi naan jamono ji la jamono dafa yàqu jamono moo mel nii lu waaye mën dara lu ci kenn mën dara ngeen di wax waxi ba tax na du ngeen tere lu ñaaw du ngeen digle lu bon ah du ngeen digle lu baax du ngeen tere lu bon ngeen nekk di pat ngeen nekk di maye pataaral ngeen nekk ci noppi ba ngeen nekkee ñay def lu bon seen yu bon yi bu demee ba lëmbee réew mi ba lëmbee tooginu askan wi su ko defee ngeen daal di jàllar be ku di ñaan yàlla yonent bi nee na moment boobu kenn du leen wuyu de moo tax mu ne na nekk ñuy digle lu baax ngeen tere lu ñaaw lu jiitu lu ñaaw bi di leen wër nomb su ko defee ngeen tàllal seen yoxo di ñaan yàlla te yàlla du leen buyu ah kon ñu gis ne jamono ju ñu toll ni de ñun ñoo war a dund bi ndax boo duggee ci internet la nga fay dégg la nga fay gis lañ la fay wax lañ la fay won wallahi da nga naan déedéet xanaa ñun dañoo nekk ci beneen monde bu wuute la fi mag ñu baax ñi bàyyi yan leen yàlla fay ba tax na loolu mooy la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ba tax na mu ne ñu na ngeen nekk ñuy digle lu baax muru na ngeen digle bil maaruuf lépp luy jagal pénc bi na ngeen nekk ci kuréel bay digle lu baax ndax looloo tax yàlla tabuñu mu nañu kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen a nekk xeet ba ma tànn ci xeet ni da tax yàlla tànn ñu mooy li ñu yonent bi wax fii taamuruuna bil maaruf wa tanxawna lil munkar da ngeen di digle lépp luy jagal nekkinu askan wi waaye dangeen doon ñuy tere lépp luy jaxase lépp luy xajamal pinc bi dangeen di tere loolu di digle lépp luy ñoŋal pinc bi su ko defee ndigam looloo tax yàlla tànn ñu yonent bi nee nañu muroo na ngeen doon ñuy digle bil maaruuf njëkk wan xaw na ngeen tere anil munkar lépp lu ñaaw te bon qabla an tad'u lu jiitu ngeen di tàllal seen loxo di ñaan yàlla fala yustajaaba lakum te yàlla du leen wuyu ndax lu bon bu xasee be limbee askan bi su ko defee ñépp képp kuy dund askan boobu sa xel ak sa xol fu muy jëm mooy nañ leen ñaan yàlla nañ leen dellu sa yàlla ñaan ko dellukaay yàlla boobu noonu ñuy ñaan nag yenentu bi nee bu ngeen ko defee su boobaa yàlla du leen wuyu ndax dafa am lum leen tere defu leen ko mu am lum leen digal nekku leen ci donc ñu bon yooyu noonu seen lu bon yi bu demee ba limbee askan bi nag ngeen dellu di tàllal seeni loxo di ñaan yàlla yonent bi nee na su boobaa yàlla du leen wuyu ba tax na alquran ba ñu yore di ko jàng buur yàlla tabaraka wa taala mu ñu fay avertir ña topp seen bànneexu bakken fii ci àddina lay doon seen résultat ëllëg yowmal qiyaam ak képp koo xamante ne dafa noot banneexu bakkanaam ana lan mooy résultat keroog yowmal qiyaam ki bëgg a xam ñaari melokaan yi seen résultat ëllëg bés pénc nang ñu topp ci réew mi FM 97.5 ci waxtaanu suba bay jaar ci daara ji ci waxtu wi bu ñu demee xool mbokk yi ci suuratu naziaat dinañ fa fekk aaya ba yàlla buur bi tabaraka wa taala di joxoñ ñaari façonu bakken ya nekk ci jëmm doomu aadama ñuy dund ak moom bakken bi de day womat jëmm ba muy dund di ko yóbbu ci lu ñaaw waaye yàlla nee na kooku de ah, bu bàyyul bakkenam jooju di ko womat di ko yóbbu ci lu ñaaw mujjanteelam du du baax de mujjanteelu bakken jooju ak jëmm jooju du doon la leen di neex de waaye képp ku noot bakkenam nga wóor mu wóor na la ne di taxaw sa kanamu borom yàlla nee na boobu bakken mooy bakken bi ma gërëm te dinaa ko dugal këru xéewal ba ñu naan àjjana moo tax buur yàlla nee ci suuratu naaziaat بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى buur yàlla nee na fa amma man taxa bépp nit bi nga xamante ni képp koo xamante ne beew nga mbewten dab ci sa dund bi nga yëg sa bopp faaleetuloo la yàlla santaane faaleetuloo la yenentu bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam wa athara alxayaata dunia nga jël àddina yenn ko sa kaw bopp nga jël àddina jiital ko nga jël sa bakkan jiital ko mu nekk sa banneexu bakkan nga jël sa bànneexu bakkan di ko topp fum la jëmee fa nga koy fekk fu la diri jëme la fa koy topp jëm fekk ko fa bu la moyloo yàlla sax loolu neex na la képp ku dundee nii haa yàlla nee na ëllëg bés pénc fa innal jahima hiya al ma'wa kooku mujjanteelam de mooy kër bi ñu naan jahim ci këru safara yi la bokk am na koñ ba tudd jahim ci gox ba ñu naan jahannam gox ba nekk ci jaxannam am na quartier bu fa tudd jahim képp ku mbewte dab képp ku mbewte dab nga nekk ku beew nga nekk ku fuy yig sa bopp faalewuloo nit ñi koo gis xeeb ko koo gis doyadal ko yow de defe nga ne yow dong yaa fi nekk di exister ba tax na mbewte bi nga yóbbu ko sax sa diggante ak sa borom faaleetuloo yàlla ci len suuroo yàlla ci dara yow daal la yàlla wax loolu dangay ngay jàpp ne loolu ay affaire yu teeraa teer la waaw jàpp mbiru yàlla daal ak ñuy def la yàlla santaane ñooñu da nga leen di jàppee ay nit ñu doyadi or ko yaa nekk ko doyadi yow yaa xamut lu xew yàlla yow lay tikku nee na fa amma man képp koo xamante ne taxa bew na fuy nga ab reywande jàpp na la ba tax na wa aatharal xayaata duniya nga jël dundu àddina jiital ko yenn ko ah sa loosa ay damma rek waaye yàlla nee na ànd ak loolu yëpp keroog bés penc boo dajek man karke bu ñu naan jahim ca dëkk bu nekk ci safara hiyal mawaa foofu mooy doon sa wàccuwaay yow fa ngay mujj moo lu ko jar parce que da nga ànd fuy yëg sa bopp ba tax na faalewuloo ndigle ya yàlla digal la yonentu bi santaane ci ay njàngale yu sell yow yëpp danga yadal nga jël àddina si rekk jiital ko muy yow xale bu góor bi muy yow xale jigéen bi muy yow doomu aadama bi ci jëmmam moytul tul déglul aaya bi avertissement bala yàlla jox la de bu dee nii nga nekkee na nga tuub nga wàccee sa bopp teg sa tànk ci ndigle ya yàlla yàlla te nga defee ko comme naka yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ak suñu mag ñu baax ñi yal na leen yàlla fay yàlla nee na képp ku mooyu loolu nga jël àddina jiital ko fa innal jahima hiyal mawa kër bu ñu naan jahim ci karke jahannam nee na jahim boobu noonu mooy doon sa wàccuwaay yal nañu ko yàlla musal amin ya rabbal alamin waaye beneen bakken baa ngi ni buur ko bégee mu di ko takkal garaat bi nga xamante ne garaat bu noobul la garaadu ñu noobul lañ moo tax yàlla ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al mawa bor yàlla ne waaye képp koo xamante ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi képp a koo xamante ne yaa ngi am tiitaange yaa ngi sóor bés boo xamante ne dinga taxaw sa kanamu borom ba tax na wanaxan sa anil hawa nga daldi xañ sa banneexu bakken ci bànneexu mooy yàlla fa yamu diri mu di la sa yóbbu ngay xeex sa banneexu bakkan ngir mu bañ laa yóbbu ci mooy yàlla yi yàlla nee na boo dund sa jëmm dundin wi boo dund sa bakkan anam bi mu di la diri di la yóbbu si xëytu mooy yàlla ngay lànk di xeex moom yàlla neena boo dundee nii ak sa bakkan ba nga faatu yàlla buur bi nee na dinaa la récompenser fa innal jannata hiyal ma'wa kiru arjana di kiru xéewal ba nekk fa man yàlla foofu mooy doon sa wàccuwaay mbokk yi buur yàlla mu ngi wax ak ñaareelu bakkan bi mu ne yow jëmma joo xamante ne boo déggee hayya ala salaa yaa ngi sóor ne ah lii tax yàlla bind ma boo déggee hayya alal falaa nga naan ah nodd bi may dégg nii de moo tax buur yàlla bind ma wala sa waajur digalee lépp lu la naqari te mu dem dëppook la islaam jàngale mu dëppook seen bëgg-bëgg yaa ngi leen di dawal safak marwa nga di leen taxawee seen taxawaay nga di leen taxawee seen bëgg-bëgg ndax yaa ngi sóor ne yàlla moo ma sant lii ma nekkee ëllëg kerook bés penc dinaa taxaw sama kanamu borom mu laaj ma nag nga doon dundeek say ñaari wuyjur nopp ji ma la defaral ba nga déggee hayya ala salaa hayya ala falaa salaatu xayru min an nawmi est-ce que da nga doon dem wuyu ngay sóor bés boobee ba tax na wa naxa wa naxa nafsa anil hawa nga daal di tere sa bakkan nga daal di noot sa bakkan ci lépp loo xamante ne ay bannee xam lañu yàlla nee na fa innal jannata hiya al mawa léegi-léegi yàlla nattu jëmm joo xamante ne day dund ak ñaari màgget ñaari wuy juram waaw seytaane ñëw na la sa ñaari màgget yi dañoo mel nii waaw mu di la déy sa biir xel loo xamante ne kenn mënu koo tudd sa ñaari màgget yi daal ah ñii daal dañoo mën a sonalaate dañoo kii dañoo nii dañoo laa or ko fa ñu toll nii tey yow jamono toll nga fu gën a garaaw ne tey ñoom fu ñu toll yow toll nga fu moment boo xamante ne yàlla doon teree nelaw ànd ak loolu jandiwuñu la beddiwuñu la bàyyiwuñu la ak sa bopp yaa ngi taxal seen kaw guddeeg bëccëg ay xeetu sobe la doon génn ci yow ànd ak loolu ñu ngi muñ nekk ak yow kon tey jii ana lan moo war a fees sa bët bi ñoo ñu tollu fa nga toll woon ñu màgget ba doon gone ñu yor xele gone ñuy wax waxu gone seen xel naax saay yàlla nattu la nga dund ak ñoom munoo leen muñal dara munoo leen acceptel dara munoo leen toléré ci lenn ah kon yow delloo woo naar bi xoromam delloo woo say ñaari wuyjur njëkk bañ la nekkee woon jamono bi nga nekkee tuut tànk waaye yàlla nee na képp ku suur ne keroog boo taxawee sama kanam dinaa la laaj ñaari màgget yooyu ma nattoo la nga dund ñoom ana lan nga doon def ak ñoom jamono bi nga doon dund ak ñoom képp kuy suur bés boobee ne dinga taxaw sa kanamu borom mu di la laaj sa dundin ba tax na nga nangul sa ñaari waajur yooyu nga accepter leen nga muñal leen nga noot sa bànneexu bakken nga bañ leen mere nga bañ leen doyadal nga di leen toppatoo nga di leen neexal buñ la ne sax bul dem fenn nga toog seen wet ñu di la xool rekk sa bakken bëggu ko waaye ndegem ñoom loolu lañu bëgg danga nga war a xeex sa bànneexu bakken ba nga leen defal ñoom lañu bëgg yàlla nee na képp ku dund ak sa bakkan anam bi ni mel keroog boo dajek man xamal ni arjana mooy doon sa wàccuwaay moo tax buur yàlla ne wa amma man waaye képp koo xamante ne xaafa maqaama rabbihi mu ngi suuraale mu ngi bàyyi xel ba tax na tiitaange ba mu am ci xolam mooy bés dinaa taxaw sama kanamu borom mu di ma laaj na ma dundee tax na wa naxa nafsa anil hawa mu daldi noot banneexu bakkenam ci lépp lu nga xamante ne banneexu bakkenam da ko ci diridi ko ci yóbbu ci lu ñaaw yàlla neena na kooku fa innal jannata kër ba nekk fa man di sama këru xéewal ba ñu naan arjanna hiyal ma waa kooku foofu laa koy tàbbil keroog bés pénc sa banneexu bakken mooy nga dégg yàlla sala asalaatu xayru mina nawm mu naan la tëddal bët setagul démb fajar tey boo ko tubalee garaawul sànq nga doon jóge ko liggéey sonn nga seddaay bi boo jógee ko di nga ko mën a fay mu di la dee xeetu wax yoo xamante ne danga koy topp psychologiquement ba faf mu roof lañ nelaw bu neex waxtu yu julli fajar weesu nga nekk di nelaw boo yeewoo nga ñëw di këpp këppaaral moo ne seytaane moo installé yooju ci sa biir xol ci sa biir xel waaye ndegem yàlla dalaa boole ci ñi nga xamante ni yaa ngi suur ne dinga taxaw sa kanamu borom mu di la laaj sa dundin képp ku am tiitaange bi nu mel sa biir xol ba tax na sa bakken lépp lim la digal ci xeetu mooy yàlla danga kay bañ ba tëdd ci naaj ba yàlla nee na waaw kañ yow bakken boobu de boo dajeek man xamal ni kër xéewal ba nekk fa man di arjanna fa laa lay tàbbil arjanna jooju la yonent bi wax ci maanaa xadis inna fil janna am na ci biir arjanna maa laa aynun raat la musu tege wala uzunun samiat nopp musu koo dégg wala xadari ala qalbil bashar amul benn xolu mbindaafoon ba ko mën imagine imaginer dajal ko ma loolu mooy lan yonent bi yonent bi ak yàlla rek ko xam loolu kenn xamu ko xéewal yooyu bot musul tege xéewal yooyu nopp musul dégg xéewal yooyu xelu doomu aadama musul daj moo ne xéewal yooyu mooy lan yàlla rek a xam xéewal yooyu ak yonenteem sallallahu alayhi wa waaye nag yàlla mu ko dencal ñoo xamante ne dañuy noot seen banneexu bakken ba leen di diri yóbbu leen ci la nga xamante ne mooy xeetu mooy yàlla yow xale bu jigéen bay muur say cër yow xale bu jigéen bi am kersa yàlla nee na na nga muur say cër yonent bi jàngal la luñ koy defee nga tënk sa bakken ci loole howluloo tàngaayu jaww ji howluloo tàngooru jant bi ba tax na nga ne sama borom moone man naa muur samay cër yonent bi jàngal ma ko ma defee ko nii nga noot sa banneexu bakken ci wuññi say cër nga noot sa banneexu bakken bañ a wuññi say kër nga muur say cër ah ak conséquences ya fa nekk yëpp nga subir ko dund ko muñ loo ko ndax yàlla moo la ko sant yonent bi moo la ko tegtal yàlla nee na boo dajeek man yow xale bu jigéen bi arjana mooy sa kër noonu ngay déggee yow xale bu góor bi waaye noonu ngay déggee yow doomu aadama bi moo xam ku góor la moo xam ku jigéen mbokk yi aaya bi lu mu làmboo yan nañu ko yàlla déggloo yan na ko yàlla def ñu installé ko suñu dund amin ya rabbal alamin waxtaan bi jeexut dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala lépp lu ñu dégg si kàddu yal nañu ko yàlla defal xasanaata fi lmizan nasaluka allahumma aminna fi awtaanina wa aslih aimmatana wulata umurina allahumma ihfaz biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan baraka allahu li wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafani llah wa iyakum bima fihi min alayati wa zikri alhakim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu